ndax kon mel na ne fàttewu ko mm. a ay ñaan ak lu ne soobee yàlla it dara ci yooyu waaye sama rakk ngi fi sëñ Fallu nag gone yi ñoom ñëpp a ngi fi bu ñu noppee dañu ko ko jébbal asalaamaaleykum wa wa barakaatu mbokk jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci mustafaa sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a ak wéram waaye di ñaanal mbooleem njabootug sëriñ Tuubaa gépp di ñaanal nag borom ëtt bii ñu toog di sëriñ daam moom Cheikh Ibrahim moom sëriñ tubaa xaadimu rasuul di ab taalibeem waaye di jëwriñam ji nga xam ne moo ko fi nekkal ci tànn gu am solo gi nga xam ne sëriñ maam baara moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Aziz moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi ngi koy amal at mu ci daaray alquran yi nga xam ne moom la taxawal ci ndigalul sëriñ tubaa di ko doxal sëriñ tubaa Cheikh Salih Mbacké ba agsi ci jamonoy sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa at mu jot tari boobu mu tuddee ko kenn ci njabootu sëriñ tubaa gi ren jii nag mu tànn Cheikh Ibrahim mi nga xam ne ku ne xam na ne liggéeyal na sëriñ tubaa liggéey bu rëy ci topp jeexitali sëriñ Tuubaa yi xëye woon ci këram gi ci Mbàkke yi ci Mbàkke Bawal topp tànki sëriñ Tuubaa yi ba dem Gabon ñibbisiwaat ci weeru kor yi gane àdduna it ci weeru safar ci ni ko sëriñ bi nettalee ren jii nag tari boobu war doon le 12 août ji nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul déparé woon baar yi bis boobu nag war a daje ak ñetti fan ci weeru safar sëriñ Maam Baara nag ñëw fii fekk si sëriñ Daam mi nga xamante ni bi sëriñam way waajuram lañ tudde bis bi mu ànd ak jëwriñam Cheikh Mahamadul Fadal waaye kàddu yi nga xam ne bëgg ci ak bànneexoo ko tax na mu jox sëriñ Cheikh Abdoulahi moom it mu fas yéene yëkkati ay kàddu ci ndigalu sëriñ bi su dee bu ñu fi jógee nag dem ci Cheikh Mouhamadul Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñam kon sëriñ Cheikh Abdou bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi yëkkati sama kàddu. ci ndigalul sëriñ daam abdourahman li nga xam ne mooy xalifab cheikh ibrahim ibn cheikh al xadim kàddu yi jëm ci sëtam bi sëñ maam baara mbàkke ak mbooloo mi mu àndal yépp sëriñ bi neena mi ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a kawe nee na mi ngi leen di sant bu baax itam di leen gërëm ci yitte ji nga xam ne dox si ngeen ko fi su muy yitte joo xam ne xëy na day soog a egsi ci moom tey waaye yitte ju yàgg la ju yaatu yoo xam ne naka jekk mi ngi ci biir yitte jooju yitte ji nag mooy toolu sëriñ tubaay bi nga xam ne mooy alxuraan ak xam-xam te ngeen nekk ci di ci yëngu ba ràññeeku ci lool ah, ba tey ji yàlla dogal ngeen am ci ay darajaat yu kawe kawe te mooy ak yokkute am ci bu baax a baax yokkute gu ràññeeku itam ni nga ko waxee daara ji ñu ko sancee léegi lu mat ñeent téeméeri nit ak juróom-ñeent mokkale nañ fa alxuraan yamut ci loolu waaye mu am programme ku jógeeti ci daara ji mën faa jàngi xam-xam ba li nga fa mënta ñàkk amee ci lijaasa nga man ko faa amee man faa ame itam formation professionnelle loolu yëpp nag dara da cee génnu sëriñ Touba ndax sëñ bi euh, yitteem lépp dara génn ci woon defar doomu aadama yi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim xamal leen yàlla waaye moom ci boppam moo wax ne ab toolam mooy alquran liñ wax nag ne. Euh, Euh, mbir maa ngi soog a mel ni day soog a yegsi ci moom tey jii donte yëfama woon naka jekk mooy bis mii ngeen di waajal war koo def la 12 muy bisub tari alxuraan am leneen lu ci dolleeku te mooy sos yeneen daara ju mag yoo xam ne nii day sofu ci daara ji ngir yàkkali liggéey bi war koo defee fële ci euh, Mbàkke Baari ci Kër Sëñ Sidi Maxtaar gëla ci sowu bi euh, loolu mooy li ci yees fekk itam jamono bu bu ngeen tollaan ci def tarib alxuraan bi ngeen di ko jagleel kenn ci njabootu sëriñ bi ngir yàqale ko liggéey bi ren ji mu tombeek Cheikh Ibrahim ibnu Xaadimu Rasul loolu de sëñ bi nee na rafetlu na ko lool naka jekk ba mu ko commencé ci ka mag ci njabootu sëñ bi waaye lii moom rawatina ci ndax dafa ñëw ci ay tànki boppam kon loolu mi ciy sant bu baax di ci rafet njort bu baax itam eh, bi nga ko ko waxee lim la njëkk a wax mooy loolu de mm, rafet na njort ci ne liggéey bu yàlla nangu la. ndax weer wi ñu koy war a def muy weeru safar ci la Cheikh Ibrahim gane woon àdduna te day mel ni bis bii ngeen ko jàpp soreewul ak bis boobee nga xam ne moom la tombeeloon kon loolu ak cant la ci di luñ ci rafet a njort euh, ñaareel ba mooy mm, Cheikh Ibrahim mii nga xam ne moom ngeen jagleel bis bi tey dafa am histoire ak alxuraan ndax nee na dafa mas a seeti maam Thierno Birahim euh, ñuy waxtaan ba mu xamal ko ne mbaa fonk nga alxuraan mu ne ko waaw fonk naa ko li man lépp de maa ngi ko ci def mu ne ko waaw ku ko ñu ko war a fonk ngeen ñëpp ko war a fonk waaye yéen njabootu sëñ bi yéen ci raw ndax yéen alxuraan moo tax ngeen am ne ko sëriñ bi dafa mas a toll ci xaal yi jàppul woon ne sax dana am ay ay dendandoo ay waa kër euh, loolu lenn la ci histoire nee na ci alxuraan la jaar ginnaaw sëriñ bi kaamil bi mu ko binduloo woon mu bind ko ba pare moom maam Thierno fas ci loola sëñ bi nangu ko am. nee na ba mu jébbalee sëriñ bi kaamil ba sëñ bi xamal ko ne li nga ci façon yàlla borom nangul na la ko waaye taxutoon nag mu nangoo am ay takk na ginnaaw mu bindalaat ko ab kaamil fas ca kaamil ba loola bi am ay takk ñu ñuy tudd di ko tudd ni doom nee na ba ma bindee kaamil ba ba jébbal ko sëriñ bi fasaat ci loolu sëriñ bi xamal ko ne kon fa pas boobu nangu na nee na loolu ne ko loolu yi nag eh, bu fekkee ci barkeb alxuraan ngeen amee yéen kon war ngeen a fonk alxuraan lii nag bu ñëwee dolli waat ci loolu Cheikh Ibrahima mi yàlla mayoon ko cër bu rëy ci alxuraan ndax histoire saxal na ni bi muy dal jàng ak bi muy bind kaamil di ko yot sëriñ bi njaareem lépp ci ñetti at la loola de woon lu raar ci jamono yooy mu yomboon ci moom lool itam ndax bi sëriñ bi sëñ Abdourahman indee sëñ Ibrahima njaareem di ko jébbal sëriñ bi jébbalaal ko ab kaamilam da koo seereel ay cant daa seereel sëriñ bi ay cant ci Cheikh Ibrahim ndax nu mu ko yombale la ko sëriñ bi santoon ci moom te muy am njàngum alxuraanam xamal ko ne jàngal naa ko ba tey jii moo bind li te mësuma ko merloo mosuma merloo yombalal na ma ko lool kon maa ngi koy sant laa waral sëriñ bi boolewaat leen wëllëre dénkaat ko ko ba loolu mooy illay Cheikh Ibrahim ki mu njëkk a gis ci ak njabootam di sëñ Abdourahman mi mu tudde ko sëñ Daam Abdourahman Lo loolu lépp nag jataay bii firnde la ca loola ba tax na sëriñ bi daal nee na jël na yëf yi muy muy muy yëfi boppam mi ngi la ciy sant di la ci gërëm di la ci ñaanal waaye fas la ci yéene ànd ak yow nag muy daara ji ndax daara ji yëfama ab liggéeyam alxuraan la lu ngeen ci mas a def mel na ni moom ngeen ko defal lii nga ngeen di def nii itam ginnaaw bu mu ko rafetloo fas na ci yéene ànd ak yéen ba jeex ci tàkk ci loolu itam lay xamale ne képp koo xam ne wëllëreem nga wala ngay ak njabootam wala ngay ab soppeem wala ngay ab taalibeem ak sax képp ku doon dara ci sëriñ Touba rek moo xam taalibe nga ak foo ko doonee moo xam wëllëre nga moo xam soppe nga mu xamal la ne bis bi bisub sëriñ liggéey bi liggéeyub sëriñ bi la mi ngi ciy nekk di la ca woo nga ñëw jàpp ci ak noo ci mën a jàppee ngir lépp lu mën a tax mu yéwén rek ñu defee ko ko sëriñ bi bëgg ndax liggéeyub sëriñ bu mu gërëm la ndax liggéey ci alxuraan moom liggéeyal ci sëriñ Touba ko def rek nañ xam ne yaa ngi ci biir liggéeyub sëriñ Touba ñaari sart rek la am Euh, benn bi mooy na yéene ja rafet te wér ñaareel bi mooy na ko sellal waaye bu ci yii dajee rek nañ xam ne sëñ Tuubaa nangu na boobu liggéey te gëm na ne moom mii di si Mouhamadou Lamine Bara mi looloo ngi ci moom mooy pas-pas bu sell ak ak yéene ju wér kon nag mi ngi xamal ñëpp ne daal lii yëfa ma dugg na ci bu baax duggal ci mbooleem ku ma am di ci woo ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci ci jàmm te ñu amee ci lu kawe njort ci barkeb sëñ Tuubaa te sëñ bi nangu ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah